indi match bi kontaan naa si kontaan naa si kontaan ma si parce que fekkoon sama sago kese la mooy tey ñu gagné. Hmm. parce que tey looloon looloon tax a jóg du man kese mais groupe bi yëpp loolu la ñu décidé woon mais mais daal lii dinañ ko sant yàlla quoi. parce que hmm. yàlla tamit mooy may ñun ñun ay jaam kese lañ tey dañ koy ñaan. Hmm. xam nga képp équipe bu ñu dajal tamit dafa doon ñaan pour gagné match bi. waaw te ñun suñu borom moom la ñuy ñaan ñoom tamit suñu borom la ñuy ñaan. vraiment match bi comme nil dafa demee am nañ carton rouge mu ñu jëlee si nil vraiment man awma lu may wax quoi. Hmm. awma lu may wax lu dul na peuple bi dolli ñaan xam nga bu ñu bu ñu découragé parce que ñun on va relever le défi le défi incha allah loolu moom ñun xam nañ ko. nañ liggéey nañ gën a liggéey daal nañ gën a liggéey. Ah. voilà dina a waaw trophée bi moom maa ngi koy dédié sama famille quoi. maa ngi koy dédié surtout sama yaay maa ngi koy bu baax. Hmm. waaw waaw waaw kay waat naa xam nga mu yokk ñaan yi xam nga incha allah dina baax.